mooy li nga wax li nga feeñal muy euh, dolli firndeel ne ah président Macky Sall ak ñu ñu àndal seen jikko xëy na pik ak peel euh, am njottoon nañ ne ak mbas mi xëy na seen xel dina dellu si waaye dafa mel ni ñoom mbas ak ñàkk mbas bii bukki bii njuur bi sàmba sama béy sama béyu béy sama béyu béy béyam <laughs> ñaareelu gàkk-gàkk bi mooy comité bi même bu si euh, rakkam nekkul woon dafa antidémocratique balaa ñoo kaa taxawal fii laa yëkkati sama baat neleen leen comité de pilotage bi bu mu mel ni suñu conseil d'administration hôpitaux yi conseil d'administration hôpitaux yi nu mu mel représentant gouverneur représentant préfet représentant ministre représentant service de l'État après nga gis benn représentant des travailleurs benn représentant des commité de santé maanaam des populations léegi maanaam ñi Macky Sall di tabb ñoom ñooy ëpp population yi ak travailleurs yi nekk ci ñaar wala ñett jëlal conseil d'administration wala kuréel yépp moo xam hôpital moo xam IPRES noonu la bindoo maanaam dañoo tëgg démocratie bi ci anam boo xam ne population bi ak travailleurs yi même bu ñu manko woon jaar fii ñeneen ñi ñoo ëpp doole ci wàllu lim donc boo xoolee ñi mu tabb ñi dépendre ci état ñi dépendre ci Macky Sall ñoo ci ëpp ñeneen ñi même bu ñu booloo woon xool gauche du ñu mun yóbbu maanaam le comité de pilotage fu ñu bugg loolu moo nekk suñu conseil d'administration hôpitaux moo tax loo gis ci hôpitaux yi doxul baaxul santul dañ leen war a faj ñoom ñii war ñu faj donc moo tax comité bi awma si yaakaar ndax ñaar benn bi dafa mel nii ngay dafa mel ni ngay dawal saret nga jël maanaam saret bi jiital ko jël fas bi teg ko ci ginnaaw maanaam la charrue avant les bœufs nu koy waxee ci nasaraan doo jël dépense yi jël marché yi marché transport marché ceeb jënd say ceeb jënd say lépp ba pare ne ko acca li léegi yéen kaa leen xool wala yéen kaa leen yekk lu ngeen di yekk dañ fi waroon nekk bu ñuy ndugu dañ fi waroon nekk bu ñuy dëbb dañ fi waroon nekk sax bu ñuy tànn lu ñuy togg ndax maafe la wala mbaxal saalum wala ñeleng ak dépense bi ñaata la mais yow nga nga jël dogal yépp ne lii la ñuy togg lii la ñuy ndugg kii moo koy togg après nga ne kaay xool loolu loo fay xool bu neexulee ah am nga si wàll donc moo tax ma jàpp ne wax dëgg yàlla président Macky Sall bu waxee nouveau ordre boo xoolee ni muy doxalee ancien ordre la maanaam ancien politicien yi doxalinu ancien politicien te nouveau ordre nouvel ordre pluto mooy indi lu bees Sénégal bu bees Afrique bu bees boo xam ne du politique politicienne boo xam ne du bii bukki bii njuur bii sàmba merci à vous alors euh, de l'autre côté comme ni ñu koy defee donc on va retrouver tout de suite Lena Bien